Euh, jërë ngeen jëf ci ànd beek seen émission faram fàcce ñu ñaanal Pape nga Ndiaye euh, congé ak jàmm ñu lay nuyu Madiambal Diagne maa ngi lay fay di la nuyu di nuyu su téléspectateurs yëpp euh, di leen dokkeel ci korité yi di leen baal àq te di balu àq jërëjëf déwénu ci ngeen yéen ñëpp mbokk yi ma Madiambal laata ñuy commencé émission bi damay jokkoo ak yow nga nekk kër ga yaa ngi woon ci football bi finale euh, demi-finale Ligue des Champions retour Real de Madrid Manchester City euh, Real wane na ni ren xëy na mooy équipe bi ëpp doole club bi ëpp doole ci Europe am déet. football nag moom yàlla dama ko nattoo bi ma nekkee xale ba léegi dama koo bëgg euh, def naan sax yàlla lu boole loolu man ak yow. final bi demi final bi seetaan naa ko wax dëgg yàlla Real équipe ba nga xamee ni la. mi ngi wuyu ci loolu ba léegi ndaxte équipe bu mas a mag la équipe ba nga xam ne ni que foo yaakaaree ni dee rek fa ba muy juddu dalay bett ba muy yëg ba muy dekki dalay bett loolu moo xew ci demi-finale bi euh, dem nañ ba yaakaar ni Real ñàkkoon na ko euh, Real si ci match bi bu mujj ko gagné. Mm-hmm. qualifié war a dem finale euh, contre Liverpool. Mm-hmm. waaye nag du ma nangu ni que Real moo équipe bi nga xam ne moo mën ci Europe fi mu toll nii. jàpp naa équipe bu mag la gagné na championnat Espagne Liga bi. mais City. Euh, euh, City équipe bu mag la tey ñi ngi nattable naan moog Liverpool ku ci jël euh, Premier League bi kon ku gagné City éliminé ko ak ni mu ko éliminé équipe bu mag la kaw kenn du ko nattable Europe nag bari na ay club yu mag ndaxte boo tuddee reyal tudd City tudd Liverpool mën nga cee boole Chelsea bi nga xam ne sax ren doxlewul. Hmm. wala Bayern bi nga xam ne ren doxlewul waaye li wér final bi nga xam ne war nañ ko am 28 mai euh, Stade de France final bu mag la war a doon diggante Real ak Liverpool. mooy ñaari équipe jàppale sax mhm. diggante Sadio Mané nekk euh, Benzema lay doon. mu ngoog parce que final bi lu tax moom solo mooy euh, ñaari équipe yi ëpp lañ gagné Ligue des champions ci Europe ñooy daje. Mhm. kii 13 kii 7. Real gagné ko 13 fois Liverpool 7 fois. Mhm. final bi ak lu mënti xew final bu mag lay doon le 28 mai ca Paris. final bi. diggante ñaari équipe bi la waaye dafa ne final boobu tamit ci la ñu war a ràññee kan moo war a nekk ballon d'or ci ren ndaxte boo xoolee ñi nga xam ne mooy seen liggéey te ko ñu koy euh, saytu. Karim Benzema Sadio Mané ak euh, Sadio Mané fu mu toll ñoom dañuy nattable jàpp naa ne ñoom ñaar ku ci gagné final coupe d'Europe bi dina yokk sa chance euh, gagné ballon d'or bi ak tamit na nga koy gagné coupe d'Europe bi ndaxte def naa ni ñoom ñaar ñëpp joueurs yooyu ni kenn ku nekk si ñoom. Euh, boo nekkee ci match ak sa équipe fi mu toll fi mu toll nii def nga ca lu bari te léeg-léeg situation yi bari yaa ci génn sa équipe. Hmm. kon bu débloqué bu Karim débloqué situation bi contre Liverpool le 28 mai wala Sadio débloqué ko contre euh, Real defe naa ni que lu dina am lu bari lu muy pesé ci sacre finalu euh, Ballon d'Or mais soo déggee journaliste yenn yi nekk ci Europe rawatina français yi hmm. ñoom daal pour ñoom ren Ballon d'Or bi Sadio Mané lay doon parce que. waaw ah, yàlla amin ñoom pour ñoom euh, ñi ci bëri euh, ballon d'or bi Karim Benzema lay doon ak lu mënti am ci ni saison bi di di jeexee parce que dañu jàpp nii bu dee euh, jaloore bopp ku nekk la ñuy natt Benzema ko ëppale Sadio Mané ci ay but ci ay passes décisives xeex bi tàmbale na ballon d'or bi nag dafa am lu ci laxasu nee ñu marketing la nee ñu sax politique da ciy laxasu léeg-léeg est-ce que sénégalais yi tey seen supporters yi war nañoo mën a am yaakaar dëgg ni Sadio Mané war naa mën nekk ballon football. Euh, Sadio mérité na Ballon d'Or football ndaxte boo xoolee saison ren bi tey Sadio moo nekk ñi nga xamee ni que euh, meilleur buteur en élimination direct ci coupe d'Europe. ci africain yi. ci africain benn ñaar saajo am na trophée continental muy coupe d'Afrique Sadio mi ngi nekk en compétition sur quatre autres titres en Angleterre et en Europe. kon kooku ak apport bi mu am ci équipe bu Liverpool kenn du ko nattam yàlla may na ko position ba nga xamee ni que war na am ballon mais comme ni nga ko waxee ballon d'or dafa bari lu ci laxasu am na ay critères ya nga xam ne du ay critères sportifs sax marketing bi ci la waaye sax communication ci la gis nga boo xool dégg ci nations européens ni ñuy yenoo ballon d'or hmm. ak ni ñuy prom euh, pousser joueurs européens yaakaar naa ni que dafa mel ni dafay am préférence ci joueur européen Ballon d'Or ren Benzema la ko koy teree am moo di ko saajo dem ba nga xam ni day tëj gémmiñu ñëpp waaye lu ko mooy kon daañ ko jox ko africain dafa am la nga xam cee am euh, pour mu jiitu Europe ñu ràññee jox ko day def lu ëpp fuuf def kon Sadio def na lu rëy waaye loola taxul wala tekkiwul ni dina am ballon door bi ren yéene nañ ko ko nag am nañ yaakaar ne daañu ko ko defal ndaxte boo xoolee même ren dañu changé règle ballon d'or bi. cent euh, téeméeri euh, réew ñooy voté. mooy les cent premières nations au classement FIFA. ñoom ñooy voté pour ballon d'or. kon boo xoolee africains yi. te africains yi bëriwuñ ci. te bëriwuñ ci. kon loolu dina am lu muy yi ci doole vote bi jëmee Afrique te sax boo xoolee daaw ak daawaati am na ay africains yi nga xam ne sacre bi euh, am na lu leen ci wàññi ndaxte même journaliste africain watee luñu leen xam nga loolu aussi am na fi loolu beneen problème la kon moo loolu moo lay wan nag mbir mi du yomb ci Sadio waaye bu ko amee mérité na ko bu ko amul it na ko ñoo ngi koy ñaanal mu am ko ndaxte defe naa ni nag ballon d'or France football Sadio Mané gagné ko du bett kenn te du euh, euh, nekk loolu nii dañ naan que luñ ko baaxee la Euh, mérite moo ko moo ko war a may ak li nga xamante def na ko ci terrain mhm. ñi ñi yor football bi euh, ci Afrique ak ci àdduna léegi itam seen taxawaay day day yéeme lool ci di ñuy euh, traité ku nekk. Mhm. boo xoolee ci wàllu équipe nationale Sénégal mi nga xam ni dalal na fi Égypte match retour mhm. barrage éliminé Égypte Sénégal qualifié coupe du monde gis nañu fa xew sànni ay mbuusu ndox ak laser yi ci joueurs yi. ba FIFA jël dogal ni Sénégal da koy daan benn match huis clos match boo xam ni supporters yi duñ ñëw. ak mm. xaalis bu bëri ay millions. Euh, fédération Sénégal bu football Augustin Senghor mi ko jiite li ko ci jaaxal te nee ñu boo sàggantul nañ def appel li ko ci jaaxal mooy la xewoon ci match aller ba ndax Lazer yi la xewoon ci match aller bi moo ko indi te euh, rapport FIFA bi waxul benn yoon la xewoon ca Caire bi Égypte dalal Sénégal ak Lazer yi. Euh, aw xel ñaar wala aw ma nattable ni dañoo war a def appel man bokk na ci ñi jëkk a wax ni dañoo war a def appel ci décision boobu nga xamee ne FIFA jël na ko de Sénégal sanctionné na Égypte waaye sanction yi méngoowul ni ko ñëpp xamee moo di tamit waa Sénégal bu ñu defee li ñu def ci match boobu ñëpp gis nañ ko tontu la wala fayu la ñu def ci la Égypte def kon war nañ mën a am excuse de provocation wala bokk bu ñuy daan ñu daan ñëpp ndaxte Sénégal nit yàgg defee football joué fi compétition yi am solo mais li fa xew li fi xew keroog musu fi am kon bu fi xewee dafa am lu ko waral la lu ko sooke la ko sooke dang mm. mooy la xewoon Égypte marché alem mm. bu dee dañu wax boddi xeet bu dee dañu wax waxu ju raciste bu dee dañu wax waxu saaga bu dee dañu wax laser Égypte lañ ko jëkk a defee kon bu ko waa Sénégal defee fii néew ma excusé wu ma ko de waaye def naa ni que kon war nañ cee mën a bàyyi xel mais loolu mooy li ko indi lépp nag moo di problème de communication mm. coow bi mu amee dégg naa ci ay médias internationaux gis naa sur les réseaux sociaux na taxawee xarañ ca ak di ko wax ak yeneen di leen ko wax lal Sénégal dafewul ñu noonu wax dëgg yàlla. ci fan la kon nag Sénégal est ci dirigeant yi la wala ci gouvernement bi. non gouvernement yi yoram nekkul ci loolu. ci dirigeant football bi la parce que communication aussi da ngay agressif. addina bi kenn du maye dara loo laajul xeexoo ko doo ko jot kon Égypte xëy na gën naa présent ci loolu victime yi dina boppam ba ñëpp jàkkaar ni Sénégal def lu dul noonu. waaye la Sénégal def Égypte def na lu ko raw tubaab bi tubaab bi bi ñuy li xew ci stade Abdoulaye Wade waxuñu benn yoon la xewoon Caire xëy na yëguñ ko la que ñëpp gis nañ ko télévision mm. la xewoon Caire ñëpp yoon gis nañ ko télévision xëy na li xew stade Abdoulaye Wade moo doon a bees waaye aussi euh, xam nga aussi euh, euh, ñu ci bari jàppoon nañu ci tubaab bi wala ñi nga xam ne ay commentateurs football lañu ñu ci bari boo dégloo seen i commentaire xëy na xawoon seen xol xawoon naa sot tuuti pour Égypte